suñ bi daa bind bismillahi rahmani rahim ne ceernu mi nga xam ne ku ñu gërëm la fi man mi nga xam ne maa araf yii ceernu moo mën a xam ne am tax di gaaw a dellu kon nag saa ay bëtam tegoo ci araf yi ma bind rek na daal di takk aw fasam daldi gaaw dellu si